asalaamaaleykum gay kaa bu rëy am na ñàkk xam aadama wóorul ñàkk abonné ci aadama wóorul kaa bi xew xam nga lan la Sadikh bokk ak maam Ndiaye Savon ndey ak bàyyi moom moo doon doxaan mint bu soko mint bu génnee woon lëf leeg ween yi wan ko soko non stress léegi nag Sadikh dafa invité woon ah mintu ci këram pour ñu waxtaan ñoom ñaar fekk maam Ndiaye Savon dafa demoon Dubaay léegi ñu tëju ñoom ñaar ci néeg bi nag kattante nan wala kattantewul après naa ko vérifié Kumba Dia moom moo ko wax maam Ndiaye Mame Ndiaye Savon tey la ñëw Dubaay jóge Dubaay gis ne Mint ñëwoon na fi tëju ak so ak ak ak ak Sadikh ci néeg bi léegi nag moom Mame Ndiaye Savon dafa jàpp ne mint Soko moo ko yónnee wala ay awuskiti wala joor Dieye joor Dieye wala Soko ñoo ko yónnee këram pour muy saytu këram wala am kooyu Sadikh euh, wala yàqal Mame Ndiaye Savon loolu la Mame Ndiaye Savon jàpp waaye mintu nee na cest à da koo bëgg di ko doxaat moo ko ñëw iri ko ne mu ñëw këram mu di ko vérifier apartement yi ñu tëju ci néeg bi ñoom ñaar Mame Ndiaye Savon mer na nag dagg na ay saaga saaga na rakkam kaa bi naa ko eggale leen toog xaar ñu déglu vocalu Mame Ndiaye Savon yi ñàkk a abonné ci Adama Wóoru tey li ma nar kaa bëri na ñu déglu. du Kumba Gade man dangaa ñëwoon tey sama kër te dangaa xam nga ne damaa voyage dama demoon Dubaay tey nga ñëw sama kër mbaa xam nga ni bis boo ma fi fekkee di nga xam ne soxo du bandi ñi la yónni ñëpp kenn du ci bandi xam nga ne maa la gën a bandi aller retour parce que leeru alxuraan boo ñëwatee sama kër man nga fekk ma bu boobaa boo ñibbi leneen la ñuy wax dèjà yow amoo personnalité sa dex mën nga koo jur yow da ngay am nit da ngay am personnalité nit da ngay am personnalité am li ngay bëgg am li ngay bañ moo tax dégguma woon bu baax li nga doon wax. Euh. ma ne déggoo déggoo li may wax ma ne la man la maam Ndiaye Savon damaa ñëw ñu ne ma tey sama biir kër nga nekkoon. ak sa def ma tëjoog ci biir néeg bi. ma tëjoog moom ci biir néeg bi loolu lañ la wax. Mintu xam nga lan laa lay wax. Hmm. sama kër bu fi sax sant dëgg. Euh, maam Ndiaye man tëbuma tëb rek dem sa kër su ma demee sa kër. sa biir moomu ko yóbbu te lu ñàkk fayda yóbbuwuma fa. mi ngi noonu gars yi noonu la demee live minuit Sénégal deux heures du matin Europe li ma war a live bëri na wasalaam